monsieur Faye ñëw na quand même. ko woo léegi. maa ngi bëgg a dee fii nii. waaw. Ba na nga def. metti na. xam naa da ngaa sonn. loolu moo tax nag ma indil la bi nga xamante ni moo gën ci verre yi. bi nga xamante ni. soo ko defee sa bâtiment. du mos a tànk. te it day yaxanal énergie bi nga xamante ni moo jëm sa climatiseur verre baa ngi nii. bii nag sonal. verre bii moom moo nekk sama bâtiment bi yëpp. tollu day lëndëm dafay tàng. te mhm. am nañ climatisation mais ça ne va pas ba doxul. muy loolu léegi lu ci pexe. dem Mbaye frère bi nekk HLM. établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëw fii tey ànd ak délégation boo xamante ni président de la république Macky Sall moo leen yabal fii délégation bi nag délégation bu am solo la boo xamante ni sànq Ablaye Mbaye peex lim na leen délégation boobu nag dama jiite ko président de la république ci sàll moo ñu yónni fii pour ñu ñëw indi nuyoo ak ziyaaram di jaarale nag nuyoo bi ak ziyaar bi ci loxo Cheikh Abdoul Khad Cheikh Abdoul Ahad Fadilou ñu ngi jaarale ñuy jël loxo nuyoo bi ak ziar bi di ko teg ci say loxo ñu ngi nuyu tamit sëriñ Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké di la indi nuyu ak ziaru président Macky di ko teg ci sa loxo ñu jëmale ko ci xalif général des mourides su loolu weesoo nag dañu bëggoon tey ci bis bii nga xamante ni dañ koo jàngale mbaax xalif général sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñu bëggoon ci bis bi ne alhamdulilah alhamdulilah jërëjëfe waa kër Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba lu tax ñu ne alhamdulilah mooy tey suñu jumaa mag ji Massalikul Jinaan ñu war ko inauguré vendredi at yi yëpp ñu koy tabax su yàlla defee mu sotti dañ naan alhamdulilah na jërëjëfe Serigne Touba. la jërëjëfe waa kër Serigne Touba juma Masalikul Jinaan nekk na tey juma boo xamante ni fu ñuy wax ci Afrique ak ci àddina bi les merveilles de l'islam juma ji ci la bokk ñun taalibe yi dañ doon dem Touba. pour jullit yi dem Touba pour ziyaare dinañu continuer dem Touba liggéeyal Sëriñ Touba continuer dem Touba di ziyaare di liggéey waaye mën nañ ñoo jàpp ne jegeel nañ ñu tamit Touba ndax jumaa yi nga xamante ni am nañu ko fi nag mën nañu jàpp tamit ne victoire islam mhm. victoire Mouridia ndaxte soo amee jumaa bu toll nii yoo xamante ni dinañ fi mën a ñëw di jaamu yàlla di jàng xasaay bu Sëriñ Tuubaa mu am capacité boo xamante ni jullit yu bari mën nañu fee ñëw jaamu yàlla jullit dañ naan loolu victoire islam waaye nag su yàlla defee tey ñu ñëw fii teew fi président de la république Macky Sall yónni ñu fi te bi nekk bërëb bu sell nekk jumaa ju sell dañuy nag sàkku ñaan sàkku ñaan julli yi fii julli ñu ñaanal président de la république Macky Sall yàlla may ko jàmm may ko tawfeex waaye nag di ñaan tamit jàmm am ci Sénégal Sénégal nekk réewu jàmm président de la république ba léegi bés bu nekk mu yónnee délégation bés bu nekk dimanche yónnee délégation altine alxames alal suba alxames dina yónni ñu beneen délégation ajjuma nag incha moom mooy teewal boppam fii loolu nag li ñuy wane mooy président de la république dafa am fonk ak respect ci diine ci dëkku diine yi ci ci kilifa yu diine Sénégal waaye nag dafa am cofeel ci murid dafa am cofeel ci Cheikhul Khadim loolu moo tax xool tey mu yónni fii ma ñëw fii ànd ak délégation bi nga ne ànd naa ñoom